والقلم وما يسترون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah c 3 moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wi tax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 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 424 23 21 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën nga woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun am koy laajte. waaw yow laa jël de. waaw waaw loolu laa jël de. ku am koy laajte ku am. asalaamaaleykum chers internet et téléspectateurs Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax leen jox seen wàccuwaay comme ni ngeen ko faral di gisee jamono yëpp avant màggal après màggal ñu ngi dalal fii suñu palaato ki nga xam ne mooy Ahma jóob mu doon def liggéey bu am solo di dalal gan yi di leen laaj foo leen jógee ñii di leen gindi ñi nga xam ne dañoo réer xamuñu fan la ñuy jëm mu def lu rafet ginnaaw bi mu leen nuyoo ba pare na dama koy bàyyi mu présenté wu sëñ Ahma nuyu nañ la. <clears throat> ñoo ngi leen ziar bu baax yéen waa Rafah TV di leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bi rafet bi ngeen nekkee ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen ñaan bu baax a baax a baax ndax man bokk naa ci njëkk ña njëkk abonné ci Rafah TV. Mm-hmm. ndax kilifa ku baax gi ko tuddee mooy si Amadou Rafah Mbacké mm-hmm. sama soppee képp di di koo xam dama ko bëgg lool. wax mm-hmm. dëgg gis nañ taxawaay bu baax bi ngeen nekk ci màggal gi lépp daal kontaan nañ ci bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sëñ Axma ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare damay laaj lan moo la inspiré pour nga def loolu lan moo ñëw sa xel rek nga eh, taxaw di gën di gan yi. waaw man de damay ab taalib Sëriñ Tuubaa rek boo xam ne dama jàpp ne dama war a liggéeyal Sëriñ Tuubaa. Mm-hmm. ndax man commerçant la nekk fi Mas Ocass. ñu xam nañ ma. yàlla def ma liggéey ba sonn di ñibbi. bi ma ñibbee ma daal di xaw a gëj ci jumaa ji ndax ndax taa bi may xëy damay teggi. ma ne xëy na màggal gi gëj naa gis daal. màggal gi daal ma il faut ma jaar fa ndax xam naa tey bu ma rëccee daal du ma mën a gisaat màggal gi. Ah, yàlla daal def ba ma jaaree ci booru kër si ñebe laa noonu tourné. di teen di xool ba si yàgg ma gis mbooloo mu bari taxaw foofu. ñëpp di laajte. ñi daaru mi naam daaru Xuddoos man waaw ñëpp dañoo réer ñu te si gën a doy waa nag mooy ñu si bëree bëri yoruñu ay téléphone maanaam seen téléphone dañ koo bàyyi seen dëkk. Mm-hmm. ñii bi ñuy génn yoruñu téléphone. Mm-hmm. ma daan waa ñii ñëpp moom kenn jëluñ kenn wala leen taxaw ci lijjanti la. Mm-hmm. ci laa tàmbalee nag di laaj naan leen kenn ku nekk danga may wax sa euh, euh, numéro boo xam ne xam nga ko. ñu woo ñu jël ci la. la nekk lu mu gàtt yaakaar naa bu ma juum war naa mat 600 personnes. ci bëri fa laa de temps. di leen lijjanti di woote seen i mbokk. woote seen i dal am na ñoo xam ne seen dëkk yi ñu jógee fa laa woote. Mm-hmm. ñooñu ñoo woote dal ba pour ñu woo ma ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw fekkam foofu ma jox leen ñu récupéré leen am na xale yoo xam ne dañoo réeroon. Mm-hmm. dañ bind numéro bi jox ma man maa la fexew ñu feeñ. Mm-hmm. loolu lépp bi ma koy def mooy jàpp ne man taalibe Sëriñ Tuubaa laa jullit laa une fois rek li ma mën a lii mu waruma ko romb jàll faaw ma dimbale taalibe Sëriñ Tuubaa yi. waaw taalibe Sëriñ Tuubaa yi daal xalaat ku dama leen dimbale ku ci nekk fa nga jëm ñu yóbbu la ñu nga xam ne nag amuñu pexe ñu jox leen paas ñu ñu delluwaat fañ jógee woon. Mm. xam ne boobu idée boobu laa ci amoon. te bi ngay def loolu xalaatoo woon sax ne ay affaire de kii dina ci am parce que def nga ko nit ñi jël nañ ko reposté ko ci internet bi mu doon lu rafet ñëpp di ko rafetlu sa xalaat bi nga koy def yow da nga def rek naturellement. far yàlla ñëw gis nga ni demee nii. boo xoolee vidéo bi sax. Mm-hmm. man ku ma leen filmé boo xoolee mag naan ko mi ngi naan man seen bi maa ngi lay jël de. xamante wu leen. seen xool naa seetaan naa vidéo bi. waaw mu ne ma bi maa ngi lay jël de. Mhm. ma ko non garaaw damaa ko ne lu muy jël nii rek bu demee këram. bu demee këram di reetaan quoi naan xool na ki mi koy jumaa mhm. dem ma mhm. ma yow gis nga ci vidéo bi ma leen vidéo waaw man fàtte naa ko. <laughs> nit ñi naan vidéo bi ma ne ah vidéo ban non loolu ban jaaxal na ma bu ma taalee sama téléphone nag ñëpp. ñëpp ko posté personne ñu envoyé internet sama mbokk yi nekk ci àdduna bi yëpp fu ñu nekk ci bitim réew di ma ko envoyé. na ma mm-hmm. ci yow lañ ko gisee ma leen ah de rek wane ko nit ñi nii comme ay mbokkam ak ma mm-hmm. nag euh, ma xam ne tamit mbiru Sëñ Tuubaa la rek. Mm-hmm. ndax man di sagoon sama xol mooy ndax man amoon nit wax dëgg yàlla bi ma waxee dëgg te yàlla tax bi ma jógee sans place dama doon ñibbi. waaye nag bi ma rombee nit ñi nag mënutuma dem. ma ne ñoom faaw mu lijjanti leen far loolu daal ma fa tax mën na ngoo ñëw fii di wax mooy liggéey bi dafa rafet mm-hmm. waaye dama noonu sax damay noppi rek dama wax dara waaye wax dëgg yàlla liggéey bi dafa rafet mm-hmm. dëgg yàlla kenn waxum kenn kon soo noppi woon sax ñu siiwal ku def lu rafet dañ koy siiwal xam nga man nee naa wax naa ko benn waaye nee naa ko man commerçant laa fii di liggéey man ñu bëri xam nañ ma mm-hmm. vidéo bi tamit li tax mu gën a siiw mooy man ñu bëri dañ maa nekk ay doomu bàjjan ak doomu nijaay man maanaam euh, ñi ma xam xam nañ ma ne ci kaf ay xàqataay reetaan ak kaañoo nit yooyu. moo tax xam ne ku ko gis rek daan ekki sans waaj la. ndeysaan maanaam man ñu bëri xam nañ ma. te ci tamit Sénégal fu ne dem naa fa. dëkk bu mag boo gis ci réew mi dem naa fa. Mhm. maanaam damay jaay am naa client yu nekk Tamba client yu nekk Ziguinchor yu nekk Bakel Goudiri fu nekk am naa client bu boo fay jaay. Mhm. léegi nag loolu. kaw Kaolack tamit mooy sama dëkk cosaan. Mhm. wala samay parents dëkk mhm, yëpp. Mhm, man après laa toog ci Touba. mais loolu léegi nit ñi ma xam nag ba pare nga xam ne man dañ ma xamee ci kaañoo yooyu. ku gis rek ma xam ne xooli sama waaj bi. vidéo bi nag loolu moo ko gën a. ën may ampleur boobu gën a may buzz daal moo gën nit ñi ma xamee daal. moo tax ku liggéeyal sañ xaadim xam naa ne foo jaar moom tàkk-tàkk moom kenn xamu fi muy jógee ndax yow nit ñi xam nañ la mais dañ la gën a xam vidéo fi mu toll nii a koy partagé si bésu 18 safar bi nga def lu rafet parce que téléphone yi tey jii mun nga wootee doo jot réseau bi ñëpp xam nañ problème réseau mais nit ñi daal rafetlu nañ ko ñëwaatal ci moment yooyu nga xam ne nii moom nga doon expliqué nit ñi fan ngeen jëm ak yooyu ñaata nit la est-ce que mën waaw xam naa nag du pour compter bi daana xaw a jafe bëri na ndax am na ñoo xam ne nit ñëw na la ndax li gën a dawaa tamit foofu ma xaw la dagg tuuti laaj am leen lu ma la wax ndax nit ñi tamit. Mm. Euh, buñ la laajee boo xaw ma. mais gan yi si nekk dëkk bi di la jaay ñoom ñoo doon réer nit ñi. Mm. ndax nit day réer gëlëm ñu wàcce ko mu dox ñëw ci jumaa ji war a dem station Daaru Xuddoos bi. Mm. ne la station Daaru ko yoonu 28. Mm-hmm. day dem bu 28 daanu du fii daal surtout loolu bëggoon naa si ñëw da ngay ñëw fekk leen ñu lal di jaay ñoom bu ñu xamut au lieu ñu ne la xaw ma dañ naan la jaaral nii jaaral nii loolu tamit. voilà ñu bëri nag loolu lañ ma wax. dañ ma paa bi jaay fi course yi wala kii jaay fii na ma laay ah. moo ne ma yoon baa ngi nii te moom dafa gëlëm moom moom di tegtal gëlëm na bu yàgg xaw ma moo gën a gàtt de jumaa ji dafa nekk benn sorol bi dafa gudd maanaam bu fekkee mosoo ñëw Tuubaa boo ko xool nii di roox da gëlëm loo hmm. non ni mu toll rawat na nag boo xasee bu dugg ci jumaa ji bi génnaan moom jeex na bu dëkkee xamoo Tuubaa gan nga hmm. moom sa fii ne da gëlëm gëlëm nga hmm. léegi nag bu ko gan ñi nga xam ne ñoo doon tegtal nit ñi ñoom ñoo gën a réer nit ñi ndax gan du tegtal gan am na koo xam ne mi ngi mi ngi doon jëm ci bassin euh, tokkooru kii bi la astaghfirullah sàqam daaru xudus bi sàq mi. Mhm. ñu yóbbu ko bassin Sëñ Moutala. Mhm. ñoom jàpp nañ ne léegi sàq mooy bassin. ah d'accord ñooñu dem ñoom yoruñu téléphone. Mhm. ñu bi ñu ñëwaatee toog ci rond bi ñu ba ma wootee fii nii daal ñoom dañ ne ma ñoom ñu ngi ñëw fii kii te man côté boobu laa dëkkee ñu ngi ci côté sàq mi. ma la yóbbu ci biir kër ga. kon nga xam ne li ci ëpp mooy gan yi ñoom ñoo réeral nit ñi nit ki bu la laajee da nga naan te ah xaw ma ndax man bi ma lijjantee rond-point bi policier bi moom woo na ma sëñ bi ñi ñëpp dañoo réer te nga laaj ñee ba xam ku ci nekk na xam naa dañoo rus laaj. Mm-hmm. ci laa tawee naan kan moo ku réer kuy laaj foo jëm. Mm-hmm. kuy laaj bi moom ci la mm-hmm. man yëgu ma ci dara nag moom mi ngi filmé naan ma sëñ maa ngi lay filmé de. man ko noonu garaawul. nga xaw ma woon ne nag day dugg foofu. nga xam ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. man xaw ma woon ne mbir mi dana àgg fii. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man xaw ma woon ne mbir mi dana àgg fii ci am doole am doole ba ñëpp di moo woo di ma ñaanal. wax dëgg yàlla moom kii da ngaa liggéeyal ba Bamba da faaw mu feeñ moom faaw mu siiw. <laughs> waaw rafet na trop mais dama lay laaj est yow di nga di ko def comme c'est la première fois nga def ko mu am ampleur bi. waaw di si wax mu rafetlu ko gën a tax sax ma ñëw mooy loolu. xëy na am na kilifa yoo xam ne noo ci dëkk bi ay yu dem ay xudaamatu xadim ak ay muqaddimatu xidma ñi fi dëkk ci dëkk bi daal maa ngi leen jox maa ngi lancé appel di la ñaan nañu liggéey bi nga xam ne tey am na te mu jaar ci man mu mel nii damaa bëggoon daal maa ngi ñaan barke Cheikhul Khadim ñu yokk ci ay personnel nañ ci yokk nañ ma dimbale man nag li ma yàgg a soxla ci mm-hmm. man laajuma kenn dara mm-hmm. man bu ma kenn jox dara soxluwuma cent franc mm-hmm. maa ngi liggéey suñu borom mi ngi may taral sama magasin laa yor yàlla mi ngi may suturaal li maa ngi koy am sama njaboot sant Sëñ Tuubaa laajuma kenn cent franc loolu loolu tamit aussi mu am na ñoo xam ne comprendre ñu dañuy jàpp ne maanaam dama ci ut bës wala am na koo xam ne naa ma yow ñaati vie nga am la fay. tëggal loolu ñi ko dugal ci ñi mm. kenn ñi xaw ma leen. seetaan dina ne yow xamoo ci dara parce que kooku mi naan la sëñ bi maa ñaati vie nga am jox ma daraak yooyu man damay xaw a jaaxle quoi te man yooyu sax yàlla def na xaw ma ci lu bari ay am nga ay euh, fuñ may faye man xaw ma man ma ko sax man sama liggéey bi laa xam hmm. man ba ma juddoo ba léegi jógee daara ja commerce laa xam liggéey yàlla mooy suturaal wax dëgg yàlla li ma ci am maa ngi ko am sant yàlla mu néew mu bari ma sant yàlla soxluma kenn jox ma cent loolu moom na leer hmm. bugguma dërëmu kenn bu ma kenn jox dara li ma bëgg daal nit ñi defal ma ko mooy gën sëñ Tuubaa yi nañ ci taxaw hmm. dafa mel ne bu njëkk ba amoon na ay xale daal ci miiru sëñ laat bi dafa mel ne xaw ma am na amatul ay xale yu réer ñuy indi foofu mais mag ñuy réer moo gën a garaaw fuuf moo gën a ëpp moo ëpp ci dëkk bi ñu réer mhm. ndax am na ñoo xam ne dégg naa dañ doon dugal dañoo seen kër yi dafa amoon problème ndox ñuy génn di rooti nga loolu. trois jours ay Gambien nga ko. des fois nga gis ay a laaj. laa gis. Mhm. may leen ma ñu damaa réer mais ku ma ab mhm. nag di woote. ci laa ji di lijjanti mais daal li ma bëgg mooy. Mm. kilifa yi ñu ni xam ñooy seq jumaa ji ak mm. ñëg ci dëkk bi. Mm. maa ngi leen di lancer appel. nañ taxaw mbedd yi nga xam ne ñoo wër jumaay Tuubaa ji. nañ wut ay nit yu ñu fay teg ut doon ay wala lu ñu sol. ñu mën di gindi gan yi. ndax ay gan yi fi nekk mënuñoo tegtal kenn. te nit ñi amuñu ko laaj. police yi lañ doon laaj te police yi dëkkuñu fi. jaaykat yi dëkkuñu fi. te ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Tuubaa da ci ñu ko lay toog kenn du génn. kon yow da ngay bu amul koo laaj te yow yoroo téléphone ndax ñu bëri dañ naan Touba booy bay téléphone gaa dañu ko sàcc mm-hmm. moo tax ñu bàyyi seen téléphone seen dëkk yi am mm-hmm. mm-hmm. ñoo xam ne ñoo li ma seen liggéey <laughs> su ko defee kon nañu gën bàyyi xel loolu Mhm. moom daal loolu maa ngi essayé bu baax a baax. waaw damay ñëwaat ci loolu li nga ne kilifa yi ne nañ ci gën a taxaw comme c'est la première fois nga def ko mu rafet ñëpp di ko rafetlu yow tey ji buñ la ci jiitalee bu la kilifa yi woowee jiital la si nga ànd ak ay yeneen jeunes di nga am temps boobu. ndax deux jours avant màggal ak deux jours après màggal di nga ko mën. soxna si man sëñ Tuubaa jaral na ma lu ne. macha allah man Seexul Xadim man ndax damay bàyyi am na ñoo xam ne sax jàpp nañu li may def nii damaa wérut wala damaa wayadi mhm. ndax maa gis sax commentaire yi. am ñu naan dañuy xalaat. am nañu naan kii am na maa ngi béy béyuwaat naan bu nekk marché ah mhm. ndax dafa jàpp ne benn waay bu taxaw nii la rek takki daram di xaañ di wax ak kii. te man dagg yi bu ko defee takku mooy carton yi yëkkati pour sama ndigg li ma instant dama am problème ma da ko takk nii pour su ma yëkkati carton di di di installé yi. Mm. mu bañ am moo taxoon man bi ko ma fàtte ko tekki loolu moo indaale sax sama der googu ma Mm. waaw man euh, loolu li may ñaan kilifa yi bu fekkee loolu mën naa nekk man mën naa taxaw jiite ko. Mm. man mën naa taxaw jiite ko laaj bu ma kenn jox man bu ma kenn jox dara. Mm. bu fekkee sax dañuy fay sax man man naa bokk ci ñi gën a xaalis fay. non xaaroo dara parce que loolu bi nga koy def da ko def à ton propre gré. xaaroo pour lenn xam nga am na nit ñoo xam ne seen xel dafa suufe mm-hmm. dañuy jàpp ne kii ay vie lay ut wala ma ànd ak waa ji na ko kaay filmé ma nangam nangam loolu lañu jàpp ñoom te fekk ñi xam man samay kilifa am na yoo xam ne sax nekkatu wax ci tale. Mhm. maa ngi def yenn liggéey yoo xam ne fii samay mbokk yi ma sës sax xamuñu ko ci jumaa ji ak ci almeer yi ko. Mhm. man ak yàlla ak ñi ma ko seqal. rafet na loolu man moom maa ma ñekk palaas bi yëguñu xamuñu xamuñu ko. Mhm. man Serigne Touba amu ci complexe pour ko ci dara. ndax man jàpp naa ne Touba gi dama ko bu dee bale dama ci war a génn bale dëkk Serigne Touba bii. bu dee di ko fobaaree dañ ko war a fobaaree bu dee taar cuuraay dañ man mën naa ko jiite kilifa yi daal nañuy jàppale utul ñu ay personnel maanaam ñu waxtaan ci toog xool ni ñu koy organiser. man sama temps bépp man loolu loolu mooy na nekk sama màggal ma kontaan naa ci trop man bi ma gisee video dama ko lu dama ne macha allah li man maa ngi koy door a gis lii dafa am solo ci màggal gi parce que imagine combien millions de personnes ñu ñëw Touba nga leen di gindi noonu mu doon lu rafet mais dañ lay bañ a tëyee ndax euh, aajo yi dañoo bari dañ lay bàyyi nga tàggatoo. waaw jërëjëf euh, soxna si wax dëgg yàlla sant naa bu baax euh, da a baax. Mm-hmm. liggéey bi rafet comme na nga ko mm-hmm. ku oyof la. Mm-hmm. bu ñu ci waxtaanee wax dëgg yàlla yombal mbir mi. nekk na daal taalibe ku baax di ñaanal nag sang bi suñu borom ku daal fanam yokku xam-xamam te xam ne daal ab soppeem laa. Mm-hmm. dëgg yàlla daal sant naa bu baax daal. Mm-hmm. képp koo xam ne nag ñaanal nga ma. Mm-hmm. ñaan googu yàlla nañ ko suñ tubaab boole boo ñëpp képp koo xam ne daal ñaan nga rek yàlla na ko xam am na gis naa ko mais gisuma ko nag ndax man internet bi dañ fa dugg bariwul ndax damay liggéey moo tax nit ñi sama jabaar yi ñoo may woon naan ma xool euh, nijaay xoola xoolal loolu nag yëpp wax dëgg yàlla xaw ma waaye nag sant naa ñëpp daal gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp daal hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah comme ni ngeen ko gisee sama invité tey Ahma Diop la woon mu nekkoon di def liggéey bu rafet si jumaa ji di nit ñi fan ngeen jëm fan ngeen jëm kooku laa dalaloon tey sama plateau di leen ñaanal ñu fekkee màggal déwén incha allahu rabi di ñaanal seen Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wër leen jaajëfal bu baax والقلم وما يسترون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah c 3 moo dellu saat ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax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 13 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 424 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën nga woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun